mu jottali leen communiqué bi bàyyi ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen birologique yi may waaj a ci junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn test yi ñu def juróom-ñeent juróom-ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu. am nañ ci fanweer ak ñeent ñu tuddee ka contact mooy ñuy jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom benn fukk ak juróom ñu tuddee ka communautaire mooy ñuy jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci tund yi walla ci gox yi ñent ci Mariste ñaar ci Jëppal Nord Foire Wokam Parcelles Assainies ak Plateau benn ci Amitié 1 Bène Tally Gueule Tapée HLM Kër Massar Xaar Yàlla Malika Mermoz Ouest Foire Petit Point E Rufisque Yoff ak zone de captage ci région yi am nañ ci fanweer ak juróom-benn yu tëddee nii juróom-ñett ci Thiès juróom-benn ci Kolda ak Saint-Louis ñett ci Kédougou ñaar ci Koki ak Vélingara benn ci Bignona Joal Kébémer Louga maatam Mbour sali Thiadiaye ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi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 ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñoom fanweeri junni ak juróom-benn ak téeméer ak juróom-ñaar ñàkk wér nañ ci junni ak fanweer ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom si lalu hôpital yi wala ci loxo docteurs yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen ajan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 bañ a fàtte seen rendez-vous pour mun a tollante vaccination bi di wéy di topp digle yi ñuy joxe bos bu nekk ministère la santé et l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam